الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ñu ngi santaat suñu boroom ci dajawaat ci ab néegam di fas yéene jël benn bind te la nga xam ni boroom xam-xami xeet bi yàlla xamal na leen ko ñu sukkandikoo suñu téere bi di risala bu ibn abi zayd alxayrawaani rahimahullah yegsi woon ci fanweerilu bunt bi ak juróom ak ak ñeent muy baabun fil buyu' wa ma shaakala al buyu' su dee da nga yor traduction bu xonq bi yaa ngi ci page quatre-vingt-deux ca digg page ba fi muy waxee wa man baa naxlan qad ubbirat wa man baa naxlan qad ubirat su dee da nga yor samru daani boo xoolee ci page cinq cent vingt nga xool ci quatrième ligne ba da nga ko gis wa man baa naxlan qad ubirat mi ngi noonu bokk kon téere bi ñu ngi ko toppoon bunt bi ñu nekk ni bokk ci bunt yi gën a yaatu ci buntu fiq ca mooy buntu am njënd akum njaay ndax bari na ay mbir ci diine suñu borom yàlla dafay am ñum ko jagleel aj makka yaag zakaat yaag yooyu yëpp dafa am ci ñu mu yem amma jënd ak jaay na doon da ngaa riche da ngaa pauvre ñépp ñoo ci bokk yem looloo tax muy bunt bu yaatu bind bi ñuy jëkk a jël tey mu ne wa man baa naxlan qad ubbirat koo xam ne jaay na tàndarma boo xam ni dañu ko góoral mooy jël nañu lii di tóor tóor yi garab gu góor ga sànni ko ca tóor tóor yi garab yu jigéen ya fa samaruha lil baa'i su boobaa kon meññante ma cay juddoo ka jaay tool ba moo ko moom illa an yashtaritahu al mubtaa'u lu dul ka nga xam ne moo koy jënd da koo chartoo ak moom wa kazalika gayruha min astimar naka noo nit lu dul loolu ca meññent ya wal ibaaru loolu mu tudde ibaar mooy tazkiir mooy góoral yu jigéen ña ca mooy jël tóor tóor yi sànni ko ca yu jigéen ya wa ibaaru zaru amma nag buñ koy wax ci gàncax gi nga xam ni am mbay la xurujuhu min al ard mooy bam génnee ca suuf la ñuy tudde loolee kon mbokk fii day wax ay bind waa ji dafa ñëw jënd li nga xam ne mooy tàndarmay ay nit mu jaay ko tàndarma yi daanañ jaay toolu tàndarma comme niñ daan jaayee benn wala fukki tàndarma tàndarma xikma bi ci yàlla def mooy tàndarma gi du meññi lu dul dañoo jël tóor tóoru tàndarma yu góor yi sànni ko ci yu jigéen yi loolu am na benn xadis bu siiw sax biñ naan yonent bi alayhi salaam moo ne antum aalamu bi umuri diinikum yéen a gën a xam bi umuri dunyaakum yéen a gën a xam seen mbiri àdduna doonte ne ne borom xam-xam yi am nañu ixtilaaf ci wéram nee nañ mi ngi jóge woon ci ñu yonent bi gisoon ñuy góoral tàndarma yi mu ne mais bu ngeen ko deful it dana meññ gaa yi arrêté tàndarma yañ jote def noonu meññ ya ca def meññul yonent bi ne ah lii day mbiri àdduna la yéen a ko gën a xam bu dee ñu nangu ne xadis ba wér na waaye ala kulli xaal ci xikma borom bi jël wa ala muy dogal lu ko neex tàndarma moom fokk ñu jël tóor tóor yi sànni ci yu jigéen ñi muy doog a meññ mu ne nag ki nga xam ne dafa jaay toolam fekk def na loolu ba pare ci tàndarma ya na am waa ji jënd na tàndarma yi waaye meññeent ba ci juddoo borom tool bi moo ko moom su dee nag bi muy jënd tàndarma yi kenn defagul loolu su boobaa moomam tàndarma yi moomam meññeent yi donte ne loolu ñun waa Ndakaaru mën nañu wax itteeluñu mu des nag ci tool bi waa ji daa ñëw yor toolu dugubam wala toolu gerteem kii ñëw jënd tool bi fekk nag ji na ko ba pare ñu ne bu dee ne gàncax gi commencé wul génn waa ji jënd tool ba moo moom lépp lu cay meññee waaye bu dee ne gàncax ga ne génn na su boobaa waa ji jaay tool bi moo moom meññeenti ba cay génn loolu ab atte la ci atte sharia yi su ñuy jël beneen bind mu ne wa man baa abdan wa lahu maalun fa maaluhu lil baa'i illa an yashtaritahu al mubtaa ki nga xam ne daa jaay ab jaam jaam ba yor alal ka nga xam ne mooy kaka jaay moo moom alali jaam ba lu dul ko ko jënd chartoo ko ak moom na am mbokk jaam xam nañ ne islaam fi la ko fekk xeex na ko nag bépp xeex ngir jëli ko fi jaam bi dafa am boroom doonte ne ni am na alal joo xam ni alalam la moo ko moom mi ngi noonu mën na am kër mën na am yenn alal waaye nag mook alal ji yépp boroomam moo ko moom mi ngi noonu mook alalam yépp boroomam moo ko moom am na droit def ci lu ko neex mu ne nag waa ji jënd alal waa ji ñëw jënd la nga xamee ne nii moom mooy ab jaam fekk ne bi muy jënd jaam bi jaam bi dafa amoon alal ah su boobaa jaam la jënd waaye alal ja moom ka moom jaam bi moo koy féetewoo xanaa lu dul waa ji charto moom na ko dag may jaay jaam jaam bi ak alal ji mu am yépp mi ngi noonu loolu bu dee moom lépp lu ñu charto moom yonent bi alayhi salaam dañoo joxoon règle générale mooy al muslimuna ala shurutihim jullit lépp luñ dëppoo chartoo ca loolee islam day wéyal lool lu dul loo xam ni islam jiitu woon na mu addu ca ni dafa xaram ñu koy chartoo wallahu aalam suñ jëlee beneen bind mu ne wala ba'sa bi shiraa'i ma fi al idl dara nekkul ñu jënd la nekk ci idl idl cosaanam moo nekkoon mbuus yiñ daan teg ci kaw giléem yi borom giléem bi day am ñaari mbuus yu mag chargé ko ba mu fees buy sëf giléemam benn féete ndeyjoor bi ci def féete càmmooñ bu dee suñ jamonoy tey nag mooy lépp loo xam ni marchandise da cay nekk da doon loolu siiwa la na doon loolu paquet la na doon loolu conteneur la na doon loolu lu mu mën a doon lépp loo xam ni marchandise bi ñu protégé dañ koy tudd idl mu ne dara nekkul ñu jënd idl alal barnaamij boo xam ne dafa nekk ci document buñ ca taf masalan waa ji ne fii day trente mètres fil moo ci nekk kees gi day télévision bu mele nangam nangam nangam moo ci nekk mi ngi noonu conteneur bi day tant de tonnes la yépp ci marchandise nangam nangam nangam mu ne loolu bu nekkee bi sifatin maaluma ci melokaan bu ñu xam mënees naa jaayante ci loolu wala yajuuzu shiraau sawb doonte ne du daga ñuy jënd yëre laa yunshar laa yunshar yére boo xam ne kenn tàllalu ko wala yuusaf ca kenn melaluwu ko aw fi laylin muslim wala ñu koy jënd ci guddi gu lëndëm laa yataammalu laa yataamalaanihi boo xam ne ñoom nekkuñu ñoom ñaar ñëpp di ko seetlu wala yaarifaani ma fihi ca xamuñu la ca nekk wa kazalika daaba naka noonu it bépp façon daaba façon mbaam ak lu mu mën a doon kenn du ko jënd fii laylil muslim ca la nga xam ne mooy guddi gu lëndëm mbokk kon day wax fii ci loo xam ne li ëpp ci suñuy jëflante tey ca la nekk mooy lu bari ci li ñuy jënd tey ci ay boîte lay nekk wala ci ay kees ñu ngi noonu da nga ñëw jënd grosse sukkar ci gisoo sukkar si ñu ngi noonu jënd meew gisoo meew bi ila axiri donc loolu nga xam ne dañ koo taf ca mbuus ma siwa ba carton ba ne nangam moo ci nekk am nga droit jëflante jënd ci loolu bis boo ko dajjee nekk fekk ca lu safaanoog loolu ah su booba am nga droit moom dem récupérer sa xaalis waaye bu dee da nga koo dajji ca lañ bindoon ca ticket ba loolu exactement moo ci nekk su booba loolu moom sa marchandise loolu lu wax ci wàllu googe mu ne it ne kenn du jënd yére te fekk yére bi kenn tàllalu ko te fekk ne yére bi kenn tàllalu ko da ngay gis gars yi di ko def kolobaan ay yére yoo xam ne dafa yàqu complètement col bi rek moom mooy li baax ñu jël ko am nuñ koy empaqueté ba col gi féete ci kaw mi ngi noonu nga ñëw ñu jaay la ko rawatina diggante booru timis dañ koy def soo demee sa kër soo teppee rek col kese nga gis ak i sagar loole da ngay gis ne ca wàllu googee lay amee allahuma lu dul ne dana nekk loo xam ne ni suñu jamonoy tey ba tey lu ñuy def ci ay mbuus di ko jaay waaye ala kulli xaal boo ko xoolee nga gis ko mu doy la ca loolee da nga ko mën a jënd lu bari ci xamis yi tey gis nañu ne dañ koy lem nekk ci mbuus transparente nga gis ko jënd ko ci loolu bu doon tere nag da nga koo tekki ubbi ko fekk ci leneen lu dul loolu ah su booba am nga droit delloo mu ne it loolu la ñuy wax ci guddi kenn du jënd marchandise ci guddi wala daaba ci guddi te du fekk ne da ngeen koo seetlu ba xam li ngeen di jënd lu mën a doon ca islam moom li muy bañ rek lépp luy jur werante ci jullit ñi wala luy jur rëccu ci jullit ñi lu mel noonu da ngay gis ne islam du nangu loolu suñ jëlee beneen bind mu ne wala yasuumu ahadun ala sawmi axiihi kenn amul droit di waxaale ci waxaale mbokkam wa zalika ida rakana wa taqaaraba ca loolu mooy buñ demee ba jéngante ba jegeyoo ci déggoo laa fi awali tasaa'um terewuñ ko nag ca njël bi nu wax ba ci ku ñu wax mu ne moon wal bayu naka njaay yana aqidu bil kalaam dana fasu ca kaddu gi ngeen ci déggoo wa in lam yata yaftariqal muta mutabayi'aan doonte ne teqalikoowul ñaar ñi doon jaayante waaw mbokk kon fii li muy wax rek day wax ci wàllu waxaale mu ne nit ki soo ñëwoon ci di jaay xaram wala di jaay nangam xar mi ñaata ah ki ñëw na fay naa temps mu ne yow am nga droit ñëw fay yow it fi yéeg yéegoo ni ñii kat ñi ngi bëgg a déggoo wax nañ ba bëgg a déggoo mu ne yow bu dul looloo am nga droit dugg ci waaye buñ demee bay déggoo nag amatoon droit dugg ci wante ne moom noonu la firi xadis bi wante ne yonent bi alayhi salaam du doon wax rek ne kenn ci yéen bu mu waxaale ci waxaale mbokkam loolee kon bu doon la gën a mat mbokk durit bi nga ñëw fekk muy waxaale bàyyi ko ba mu pare waaye moom moom nee na bu dee ci njëlbeenu waxaale rek la amul fenn fu ñuy juboo ci prix su boobaa moom am nga droit yu ñëw wax am maana suñ demee ba waa ji d' accord wala bokk waa ji waa ji d' accord su boobaa amoo droit ñëw di wax prix bu gën a fort ba kee proposé mu waxit ci njaay moom mu ne ci rawatina mazhab Malik njaay mooy ci kaddu lay façon masalan tey ñëw naa ni dama lay jaay la nga xam ne mooy marchandise bi téere bi day lay jaay ñaata ñu ne temps mooy d'accord nañu nga ne la d'accord naa jënd naa ko ci dix mille su boobaa dañ naan njaay mi dog na te des rek mooy waaj yi faj mën naa dem këram indi xaalis wala lu mu mën a doon waaye maadaama wax ngeen ba d'accord ci prix ba juboo rek dañ naan loolu njaay mi dog na même bu dee teqali koogu leen ku mel ni yeneen xalaat yi neen ku mel ni imam Shafii moom day wax ne am njaay moom balaa dog waa ji day fay ba ku ne dem waaye tant que ñu ngi sur place ku nekk am nga droit dellu gannaaw ci njaay mi mi ngi noonu te loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne ni ñaar ñiy jaayante ku ne am nga droit xiyaar fekk teqalikoo wuñu loolu yonent bi wax alayhi salatu wasalam wax al mutabayiaani fi lxiyaar maa lam yatafarraqa teqalikoo boobu nag bu dee mazhab Malik mooy waxtaan nañ ba juboo ci kaddu kon su boobaa teqalikoo nañu ci kaddu kii jënd moom moom bagage am bu dee ku mel ne Shafii moom teqalikoo ko mën ko gis ci jëmm ba dañuy dem ba ku ne dem ñu doog a wax ni jaay ñu dog waaye it la chaque ne ki nga ñëw wax ak moom ngeen d'accord ci prix nga fay même bu ngeen teqalikoowul yow mi jënd yaa moom la nga jënd loolu kon ci wàllu googee la ala kulli xaal wala ñu jël beneen bind bu bees su dee ne lii ñu jot a wax am na ku ci am lu muy laaj ñu jéem ci tontu wala ñoo jël beneen bind bu bees ci lii ñu jot a jàng nii léegi waaw su dee am na waaw bismillah waaleykum salaam wa rahmatullah mu ne da ngay dind masque mu xool ma waaw waaw waaw waaw waaw waa ji waa ji dafa jënd marchandise am ba ñu teqalu ko mu dem këram mu ñëwaat ne day bàyyi loole amu ci droit lu dul mu neex ki ko ko jaay yonent bi nag alayhi salaam nee na ki mbokkam jullit réccu mu xaccal ko lam jëndoon ci moom ku mel noonu de yowmal qiyaama yàlla dana ko jéggal daanu tarxis damuy tarxis loolu kon ci buntu jaamu yàlla la waaye ki nga jëndanteel ba fayante ba teqali ko amoo droit ñëw naan ko damay xàcc lu dul ne dangaa dem gis ca loo xam ne bokkul ak la ngeen jaayante woon waaye bu dee ak rëccu rekk la islam moom danaan yow mi jaay ah buntu tuyaay baa ngi nii de bu la neexee xàccal ko waaye bu la neexee it lànk te islam du la ci wax ci dara mi ngi mel ni it ki jaay mën na rëccu waa ji mën naa jaay dara wala bu ko dem ci kam ko jaay ne ko ah dama bëggoon nga jël sa xaalis del la ma suma marchandise su boobaa waa jëjjëndoon buntu tuyaaba la ci moom bu delloo ko marchandise am waaye nag islam tegu ko su bañee it amul ca benn bakkaar mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam naam waa ji nga xam ne dafa waxaale marchandise ba ngeen juboo mu dem léegi keneen ñëw di ko waxaale ndax am nga droit jaay ko ko déedéet amoo droit jaay ko ko amoo droit jaay ko ko moo tax imaamu Malik wax la fii ne ñi nga xam ne dañuy jaayante kaddu moo leen di teqali suñ demee ba juboo rek njaay mi dox na loolu amoon na ci benn waay bu ñuy wax Xuzayma su dee juumuma ci saxaaba yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn góor arab dafa ñëw ne damay jaay sama giléem gi mu ne damay jaay sama giléem gi yonent bi waxaaleek moom bañ juboo ci kàddu mu ne ko xaaral ma ñëw jëli fay la bi yonent bi demee rek am benn waay ñëw ne ko gëléem gi day jaay mu ne waaw mu wax ko prix bu ëpp boo yonent bi waxoon mu ñëw mu ne da ko koy jaay bi yonent bi ñëw ne ko waaw suñ caam yow gëléem bi da ngay bëgg a jaay gëléem bi xanaa waxtaan nañ bu juboo mu ne ko fu ñu waxtaanee bu juboo kan moo seede loolu yaa ngi kan moo seede loolu Xusayru boobu jóg taxaw ni hey maa ko seede waxtaan ngeen ba juboo dégg nga bon léegi ala kulli xaal arab bi mooy kaw kaw bi mujj na d'accord ba ne yonent bi nangam yonent bi nag ne Xusayru ba waaw yow lu tax ngay seede loo xam ne seede woo ko mu ne ko yow mi yàlla yónni man ma dëggal la ci bi nga ne Jibril mi nga jóge ci yàlla di ñëw ci yow danaa la weddi ci wax ji ngay wax kaw kaw bi yonent bi na ko yow da sa seede mat na ñaari seede looloo tax keroog bi ñuy dajale alquran sahabatul kiram dañ doon def aaye bu ñuy bind bala ñu koo bind ci téereem yàlla bi ñaari jullit ñooy wane ne bind nañ ko ci seeni téere ñoom ndax alquran dafa tasaar woon ci sahaba yi kay nga baqara al imran kay am ceeru alquran kay am nangam léegi nag téere bi nga xam ne abou bakar da ko doon dajale bala ñoo jël benn aaya fokk ñu am ñaari teemo yi bi ñu yegsee ci fin suratul tawba muy laqad jaakum rasulun xusayma boobu dong moo ko bindoon ñi ko mokkaloon moom du jeex waaye moom rek moo ko bindoon ci jamono la yonent bi alei salatu wasalaam saxaaba yi jaaxle nu ñuy def bu mujj ñu ne hey kii yonent bi taxawoon na sunu kanam ne benn seedeem ñaari seede la ñu jël laqad jaakum dogal ko ci téeréem yàlla bi am na ñoo xam ne sax dañ naan looloo tax suratu tawba amul bismillahi rahmani rahim waaye al ci gàttal rek pour tonto laaj bi mooy soo waxee léegi nit ba ngeen juboo ci kaddu dara desul lu dul mu dem jëli xaalis wala nangam amoo droit marchandise moom di ko jaay keneen wallahu subhanahu wa taala alam naam waaw ala kulli xaal bu dee kon ñu jël ñu jël beneen bind kon mu ni wal ijaratu jaiza lii di location day mooy jël service nit di ko liggéeyloo li ijaara dañ ko wax ci location waaye buñ ko ñi ngi koy gën a wax ci nit ku ñuy liggéeyloo mooy employé nit loolu lu dagan la jaiza isa daraba laha ajalan suñu ko dóoralee ab dig wa sammaya saman ñu daal di tudd prix ba wala yudrab fil fil joxlu kenn du dóor nag ca la nga xam ne mooy la nga teg muy rançon ne ku ma indil nangam danaa ko jox nangam fii raddi aabiqin na doon loolu delloo jaam bu daw la aw ba'irin sharid wala giléem goo xam ne dafa mamm dem aw xafrin bi'rin wala gas ab teen aw bay i sawbin wa naxwihi wala jaayi lii di yëri wala lu mel noonu wala shay lahu illa bi tamaami al amal loolu lépp dara du ko ca ñeel lu dul ba jëf ba jeexe naam day wax mbokk ne jël nit ki employé ko kookee day nekk sa mbindaanam sa lum la mën a liggéeyal loole dana dagan ci charte ñu daal di wax diggante ban ba ban lañuy liggéey ak ñaata lañ ciy fay nga noonu ah da nga ma liggéeyal weer wu ne danaa la fay temps wala jour bu ne danaa la fay temps ñu xam ne temps bi nii la fay bi nii la lii bu amee islam dina daganal loolu mu ne nag bu dee ne yow da nga am sa gilim gu réer wala sa jaam bu daw wala boog ngay gas lu ab teen wala ngay jaay lu ab yére mu ne lii lépp am nga droit ne ku ma defal nangam day ma fay ko waaye nag kenn du ko wutal ab dig yow daal doo ko wutal dig soo demee nag ba nga xamee ne nii bëgg nga caa génn nga génn ca waaye doo ñëw ne ku ma gasal teen ci weer ma fay ko teen bi kay da ngeen di charto da ngeen di gas ba jot ndox da ngeen noonu giléem gi daa réer da koy wër ba gis ko mi ngi noonu waaye duñ ko wutal ab dig bu ko defee ne waa da nga xam ne nag moo engagé wu ci loolu dara du ko ca ñeel fii ak liggéey ba parewul waa ji engagé woon ne man de mën naa gas seen ba jot ndox nga ne ko ah bisimilah mu gas gas gas gisul dara ku mel noonu amul benn pay boo xam ne yee yoon sa gileem ga de mën naa koo indi bisimilah mu dem une semaine ci àll bi di ko wër gisu ko dara ñeelu ko ci maadaama lañ sartoo woon mooy defal nangam ma joxe nangam maadaama defu ko loolu dara sart du ko ca ñeel buñ jëlee beneen bind mu ne wal ajiru ala al bayi ida tamma al ajal ka nga xam ne dañ koo jël def ko ligg di ko liggéeyloo pour mu jaay dig bañ koy tëralal su dee ne jot na walam yabi ca moom jaayul wajaba lahu jamiul ajr du tee ñu jox ko pay ga ba mat sëkk wa in baa fi nisfil ajal su ko jaayee nag ci digg digg ba fa lahu nisfu ijaara dana ko ñeel gennallu fay loole wal kiraaw la nga xam ne mooy location mi ngi noonu kal bay i moo jënd ak jaaye yem fii ma yaxillu ca la ca dagan wa yaxrumu ak la ca araam wa man iktara daaba koo xam ne dafa luye benn daaba bi ayniha ca moom ci boppam fas wa wala mbaam ma wala ila axiri ila baladin deme ko ci ab dëkk fa maatat daaba ba daal di faatu ca yoon wa in fasaqa alqiraa'u dana firiiku lii di location ba fii ma baqiya ca la nga xam ne moo des wa kazalika al ajir naka noonu it employé ba yamuutu bu dee dafa dee avant dig bañ ko war a fay jot wa daaru wala kër tan hadimu boo xam ne daa màbb qabla tamaami muddatil kira avant muy mat la nga xam ne mooy dig location ba mi ngi noonu mbokk kon day wax fii ne lii di employé ci jaay benn mbir ku mel noonu da ngaa jëloon benn waaye du ko jaayal ma livre bi mi ngi noonu jaayal ma livre bi léegi fii ak un mois man dinaa la fay temps waa ji jël livre bi di jaay di jaay di jaay un mois jot na livre bi jël du tey moom dañ koy fay loole du tey dañ koy fay loolu ma ne rek yooyu ñu embauché woon employé ci sa bitik moom mu nekk di jaay payam kenn du ko xool ci ne am nga bénéfice wala amoo bénéfice maadaama nekk na di la fa jaayal pendant un mois la nga charte ak moom da nga koy jox mu indi it beneen cas waa ji dañ koy jaayloo da ko kat jaayal ma sama lii léegi ñi ngi waxaale pendant un mois cent mille francs pour mu jaay ko bañ demee ba ci digg weer ba mbir ma jar kon moom mën naa uti beneen liggéey ñu ne kon bu boobaa genn wàllu la nga ko waroon a fay loolu moom lay yelloo mu indi beneen cas ca mooy waa ji nga xame ne nii dafa luye benn wala boog mu mu ne la nga xam ne mooy location location moom njaaye yam lépp lu dagana jaay dagan na luy lépp lu araama jaay araam nañu koy luy mi ngi noonu mu ne képp koo xam ni dafa luye woon benn daaba bañ demee ba ci digg ba daaba ba fa mu ne su boobaa la nga xam ne moom lay war a fay mooy lu toll na la ko daaba ba yóbbu naa tey bu leen wax dañ naan benn oto lañu gën a miin tey waa ñu luye nga benn oto mu yóbbu la cinq mille ba ngeen demee ba ca digg yoon ba oto ba am problème su boobaa lam la jot a dawal loolu dong la yeyoo bu ko defee yow la ca des nga luye ca beneen oto continue loolu la wax ca wàllu googee mu ne nag bu dee ne ki da ngaa luye benn waay mu lay liggéeyal ngeen waxaale weer yi cent mille francs masalan mu liggéey ba le quinze mu faatu su boobaa cinquante mille moom la yeyoo waa ji dangaa duye woon benn kër kër gi cent mille francs par mois ñu dem ba ci digg weer ba wala iyaasu billah kër ga yàqu su boobaa dañ naan cinquante mille francs dong ngay fay ca kon loolu day wañe ne bépp location ma ngay yeeyoo ci ñu fay ko heure bu date ba ñu limité ñëw jotee ca lañ koy doogoo nangu doonte ne islam du nangu location bu amul date waaw dama luy kër gi rek luy magasin bi rek bakkan déedéet fokk ñu wutal ko date tant la par mois wala par trois mois wala par an mais fokk ñu wutal ko date wutal ko la nga xam ne muy prix comme njaay soo jël beneen bind mu ne wala ba'sa bi ta'limi mutaallimi alquran ala alxizaaq dara nekkul ci mu jàngal kay jàng alquran ci mu mokkal wa musharatati tabib ak it sartoog médecin alal bur i ca la nga xam ne muy ak wér wala yuntaqidul kira du firiiku la nga xam ne mooy location bi mawti raatib ci dee ka nga xam ne moo waroon daaba ba aw saakin wala ka dëkke kër ga wala bi mawtil xanam wala boog moo dee la nga xam ne mooy jur ga ak riayati bi xanami riaya mooy jur gañ doon sàmmloo wal yaati bi misliha na indi lu mel noonu bokk kon fii day wax ni bokk na ci façon liggéey yi lislaam nangu nga jël sa doom wala yow sa wàllu bopp ne waa ji dag may jàngal alquran wala nga jàngal sama doom alquran su mokkalee danaa la fay temps loolu lislaam dina nangu loolu su ko defee affaire bi nekkatul léegi problème mu date ci ay jour wala weer mais mi ngi nekk ci pexe bi ngay def ba xale bi mokkal su ko defee su mokkalee yeyoo na loolee beneen mbir bi it mooy aji faj mu ne nekk médecin mu ne nekk ku mu mën a doon kuy faj rek nga chartagum ne ko ah man day damaa feebar soo ma fajee nag danaa la jox temps faj boobu mën na nekk un jour mën na nekk une semaine mën na nekk un mois ala kulli xaal boo demee ba mu faj la ba yëg ne wér nga su boobaa nga doog a jël pay ga nga koy jox te loolu it ak neexoon ñu imposé woon ko les milliers de nit ñi nekk ci télévision bi ak rajo bi façon feebar bu ne ñu mën nañ ko faj di lekk alali nit ñi ci neen waaye la jaadu woon moo dina yow nee nga mën ngaa faj d'accord ñaata ngay faji ñu ne temps ngay faji ñu ne ak bismillah malade bi soo ko fajee ba mu wér ah su boobaa mu fay la lan lay faj waaye yow nit ku ñëw nga ne mën nga ko faj cent mille soixante quinze mille cent cinquante mille jël ay suba fekk ndox jox ko bu dee sa yoon niw ci mbokk loolu mbir la boo xamee ni nii nekkul lu jaar kon lii lépp tamit mënees na ko chartoo ci wàllu liggéey nga xam ne su boobaa du tënku ci temps waaye day tënku ci résultat mu ne masalan waa ji nga xam ni dafa luye woon benn daaba seen waa ji liggéey luy na benn daaba pour na day dem place sàngam mu far dee ca yoon ba mais daaba bu moom dara jotu ko ñu ne su boobaa da ngay gis ne ah pay ga moom dañ koy saxal ay mbokkam nag bu la neexee jëfandikoo daaba ba yóbbu fa leen neex waa ji luy woon kër bu luy kër gi trois mois six mois wala un mois léegi ñu ñeente contrat bi waa ji dee su boobaa contrat boobu it day sax ña nga xam ne nii ñooñu ay mbokkam mën nañu continuer kër ga ñu seet dañ koy luyam dañ koy dëkke waaye dee ga waa ji dee ci kër ga moom dara sukku ca du jeexal la nga xam ne mooy contrat boobu loolee mbokk moo nekk règle ci wàllu sharia ci wàllu googee allahuma nag bokkul ak loo xamee ne nii ay sentiment lay doon ci borom kër ga ak kam séqaloon faatu mi ngi noonu ca lay joxe misaal ci waa ji jëloon ay ay xar embauché ab sàmm da ko da nga may sàmmal masalan pendant un an ma fay la temps waa ji sàmm sàmm ba ci digg ba xar ya dee loolu xar ya dee yàqul contrat moom koy dañ naan la indil yeneen xar jox ko ay moom moom mi ngi fi ak xalaatam donc contrat bi moom loolu yàqu ko loolee kon lay wax ca wàll googee suñu jël beneen bind mu ne wa man iktara kiraan madmuunan koo xam ne dafa luye location bu ñuy garanti fa maatati daabatu far daaba ba faatu fal yati bi gayriha ku mel noonu na indi beneen wa in maata ratib bu dee nag kawar moo faatu lam yanfasix kira du tax ba la nga xam ne mooy location ba di deñ wal yaktaru makaanuhu gayra ay mbokkam mën nañu ko luye keneen ku dul moom wa man ixtara mau mauna koo xam ne dafa lok luye la nga xam ne mooy ay jëfinukaay ñu ngi doon peel yaag pikk yaag yu dema noonu aw xayruhu ak leneen lu dul loolu fala damaana alayhi kooku benn garantie du nekk ci moom fi halaakihi ca alku ca yàqu ga nga xam ne yàq na ko lam luye bi yeddihi ci loxoom wa huwa musdaqun wa huwa musaddaqun ca dañ koy dëggal illa an yatabayyana kazibu xanaa lu dul mu leer ne moom day fen mi ngi noonu mbokk day wax fii ne waa ji dafa indi benn location boo xam ne daf ko garantir mooy mankat Cees laa bëgg a dem dama bëggoon nga yóbbu ma Cees mi ngi noonu ma bëggoon nga yóbbu ma Cees waa ji na ko mën naa laa yóbbu su ko defee moom la ñu siñeente mooy day dem Cees waa ji oto ba mu koy jël di ko yóbbu su ñu demee ba ci digg ba oto ba am problème moom moo war a lijjanti lu yëggale waa ji Cees noonu mu ngi noonu moo war a lijjanti lu yëggale waa ji Cees ndax waa ji moom luyewul woon la nga xamee ni ni mooy oto bi en tant que oto mais li mu bëggoon ko ko yóbbu Cees bokkul ak lu mel ni li ñu doon wax sànq nga xam ne kii moom daa ñëw luye ab oto ngir ab jubluwaay mais kii moom place la bëgg a dem tey mi ngi mel ne taxi bi nga jël na ko Dakar laay dem mu ne la indi 2000 masalan nga dem ba Colobane mu am problème yow la nga waxante mooy Dakar moom moo war a jël beneen taxi dugal la ca mu yeggale la lu muy def ak moom mu def ko ak moom mu indi nag beneen cas mooy waa ji luye woon na oto bi tey mu war ko yóbbu Saint bi ñu dem ba ci digg ba waaj a faatu ñu ne su boobaa oto bi war a dem Saint-Louis moom mi ngi fi ba tey à leur disposition ci seen njaboot nañu wut keneen mu yeggale ko bu leen bu leen neexee jël keneen dugal ci mu yóbbu ko mais du tee fay bi moom day sax donte ne yi yëpp mbokk maadaama téere bee ko jàngale dañ koy jàngale waaye jàpp nañ ne ki luy woon nit ba mu far faatu te yoon ba am na leneen li ñu war a lijjanti lu dul naan location bi nii lay demee naa lay demee waaye ala kulli xaal noonu la ko téere bi jàngale mu indi beneen cas kii daa ñëw luye benn mbir masalan ñëw luye ne benn peel luye ne benn pik luye ne lépp loo xam ne dañ koy jëfandikoo ay illeer laam ay machine laam lu mu mën a doon bi mu ko luye affaire ba far yàqu te moom defu ci ludul lam ko luyee woon kese la ca def ñu ne su boobaa amul benn garantie bu mu cay def amul lenn lu mu cay fay ndax xam nañ ni lépp lu ñuy liggéey lu mu yàgg-yàgg day mu sa yàqu imma mu yàqu ci ko ko moom wala mu yàqu ci ko ko luyee ludul ne nag dañoo dem ba gis ne moom kat jëfandikoo ne mbir mi ci lu bokkul ak la mu waxante woon ak waa ji su boobaa kon day fay waa ji waaye bu dee daal lañu waxante woon exactement loolu dong la ca jëfandikoo su boobaa dañ naan déedéet moom kat fokk mu daal di bu dee loolu rek lañ ci jëfandikoo amul leen lu mu cay fay loolu lay wax ci ci wàllu googee dama xamul ndax bala ñuy continuer ndax amoon na yeneen laajit yu aju ci liñ jotee jàng nii incha allah bala ñu jël bind ba nga xam ne mooy ba ci mucc su dee am na kuy laaj ci liñ jot a jàll naam bismillah waaw waaw waa ji nga xam ni da ngeen si ñeen tegas leen mu dem ba ci digg ba mu am xeer bu ko baari bu dee ne yéen la ngeen si ñeente woon mooy bëttal ma teen su booba waa ji day dem gas feneen waaye waa ji ko doon gasloo moom lam chartoo woon mooy gasal ma teen bu am ndox loolee da ngay gis ci loolu dong la koy mën a faye lañu sartoo woon te loolu it règle la boo xam ne day am ba suñ jamonoy tey gaskatu teen yaa ngi fii ak seen machine waaye kii waxaaleeg moom day waxaaleeg moom ci ñu ne danga may gasal teen ñu ne temps la ñuy fay su boobaa waaje moom la ko yitteel mooy gas teen ba ndox bi di génn mais tant que gisul ndox ku mel noonu nekkul di ko fay su ko defee waaje moom mooy gàddu responsabilité bi moo tax yonent bi aleyhi salaam daana wax ne tamit al biru jubaar waa ji nga xam ne day gas teen kenn garanti wu ko xam ngeen bokk na ci métier yi ëpp risque mooy gas teen ki nga xam ne mooy dem gas teen ba ci digg ba teen ba mab ci kaw kaka doon gas loo amu ci benn responsabilité moom moo jël métier à risque su ko defee kon lu mel noonu it la ñuy wax su dee gas na gisul ndox ah su boobaa du yeyoo fay loolu nag mooy attee charia fiq bi waaye comme ni ma la ko waxee sànq bokkul ak nag sentiment jullit ak mbokk jullitam loolu la nga koy jël di ko jox en tant que jullit ak mbokk jullitam loolu moom beneen mbir la waaye dal bu dee atte charia moom dañ naan lu ngeen waxante woon mooy bu gas teen bi ah teen moom lañ jaxam muy liggéey na ndox maadaama ndox amul kon amul fay wallahu subhanahu wa taala alam naam naam bismillah
léegi boo déposé sa garanti bu ñu la wax ne bu fekkee matériel bi yàqu na maanaam moom doo fa sànni si dara maanaam bu nekkee location bi borom ku ku ne la ku ne la day laaj garanti léegi nag boo demee sëñ bi damm boo ñëwaatee da ngay da ngay fay sëñ bi pour daal bi nga yóbbu sëñ bi waxuñu woon ne bu bu demee da ngay fay ak yooyu foofu lan mooy ak sëñ bi
ah ala kulli xaal su dee ne yow nee na da ngaa ñëw di luy ay chaise mu jël sa carte d'identité ba nga demee la nga xamee ne ni moom mooy chaise ba dafa damm mu ñëw na la da ngay fay chaise bi ca waxante wu leen ko woon dama jàpp ne bu ñu jël sa carte d'identité mooy ngir garantie ne ne da nga ko indilaat chaise yi da nga ko indilaat chaise yi ala kulli xaal loolee bu doonte ne ci atte la chaise bi bu dee dañoo dem waa ji kat indi preuve ci ni chaise bi de damaa dem dañ koo teg rek nit toog ci normal mu dam amul beneen effet su boobaa dañ naan borom chaise bi mooy gàddu loolu baa ngi am preuve ne ah kay ñoom ñoo jëfandikoo chaise bi lu tax chaise bi dam loolu ñu wax ci chaise bi mooy valable ci li ngeen waxoon ci lépp loo xam ne nii matériel la bu ñu luy di ko yóbbu tant que ki ko yóbbu jalgatiwul mais mbir ba yàqu ci noonu dañ naan yow mi nga xam ne yaay luy yow yaay gàddi responsabilité bi ndax ku ne xam ne ne ni ab chaise mu mënut dund ba ñu laa yóbbu ji fokk mu am nu mu yàqoo mën na am ci kii la jekkali ko fekk ca ka ka jëkka luye ca la xare yu demee noonu daal mbir la boo xam ne kon ci seen diggante lay nekk waaye daal règle générale bi mooy fii yëg xamuñu ne waa ji moo jalgati dañ naan kay luy moo garde responsabilité bi wallahu subhanahu wa taala alam naam dañ koy waaw bu dee dañ ko chartoo moom moom li mu wax kay mooy moom waxuñu la dara waaye buñ ko chartoo day delluwaat ca lañ leen waxoon yonent bi alei salaam dane al muslimuna ala shurutihim da ngaa ñëw di luye ay chaise bi ne la ah chaise yaa ngi ñi day xoolal dara sikku ci boo ko yóbbu woon ak chaise bu dama damay fay su boobaa chaise bu demee daf koy fay loolee moom bu dee da ngeen ko chartoo loolee moom amu ci leneen luñ cay wax wallahu subhanahu wa taala alam naam naam ala kulli xaal kon mën nañ jël suñu bind bu mujj mu ne wasu naaw ña nga xam ne ñooy liggéeykat ya mooy tëgg yaag rabb yaag ñu ngi noonu daal ñuy liggéey ci doole daaminuuna ñoom ñooy garanti lima xaaboo alayhi ca la nga xam ne nii yóbbu nañ ko ñu denc ko te la nga xam ne dañ leen koo jox amiluhu bi ajr dañ koo liggéey ci fay aw bi xeyri ajr wala lu àndul ak fay wala damaana ala saaxibil xamaam garantie du ñeel ca ka nga xam ni mooy boroom fañ yi sangoo mi ngi noonu wala damaana ala saaxibi safina garantie kenn du ko teg ci boroom gaal ga wala kiraa lahu illa ala albalaag waaye it fay du ko ñeel ca location ba bi lu dul dafa jottale waa ji dëkk ba mu jëm mi ngi noonu mbokk kon fii day wax ni waa ji nga xam ne nii dafa ñëw di la liggéeyloo yow mi nga xam ne yaa yor jël mbir mi di ko liggéey responsabilité bi yow lañ koy jox su réeree yaay fay su yàqoo yaay fay maadaama yow yaa gàddu responsabilité ne man ngaa liggéey nangam ak i nangam asalan yow da nga ubbi di defar ay télévision waa ji ñëw indi la ab télévision télévision bi nga sàggan ba mu daal di réer wala mu daanu wala mu nangam tànk ci say loxo la nekk yow yaay garanti loolu loolu nekk ca benn misaal bokk na ci it ci li muy wax fii loo xam ne xëy na ñun miinuñu ko waaye bari woon na ci dëkk arab yi nga xam ne dañuy am douche publique fa la ñuy sangoo ku ñëw da ngay summi sa yére mu ne nag yére yooyu di bari ka nga xam ne mooy borom douche bi ku gisul sa yére yëpp du ne moom ngay dem mu fay la ay yére loolu moom ci mbir la yoo xam ne xëy na ñun miinuñu ko sax fii gannaaw ba itamit mu ne ki nga xam ne nii dafa yor gaal yor gaal amul benn garantie bu muy jox nit ñi ca mooy bu dee gaal ga koy dawal na ko ci yoon suñu borom moo indi ngelaw wala ay vague ba ña ci nekkoon lab du tax ñu ne ko da ngay fay la nga xam ne ay diya doonte ne ki nga xam ne it dafa jël gaal li ñu chartoog moom mooy mu yóbbu nit ki fa mu jëm ay traversé ak moom tant que traversé wul ak moom ba yóbbu ko fa mu jëm la nga xam ne nii moom mooy payam yeyoowut loolu mu koy jël loolu kon moo mbokk aju ci wàllu googee booy jël beneen bind mu ne wala ba'sa bi sharikatil bil abdaan dara nekkul ci société boo xam ne ay jëmm ñoo koy séq ida amila fi mawdiin waxid su dee ñi ngi liggéey ci benn place amalan waxidan di liggéey boo xam ne ni benn la aw mutaqaariban wala boo xam ne nii dafa doon loo xam ne nii lu jege yoo la su boobaa da ngay gis ne islam dana nangu ñu def lu mel noone mu ne wa tajuuzu dana dagan asharikatu ñu daal di associé bil amwal ci alal ala an yakuna ribhu baynahuma ci mu nekk bénéfice ba seen diggante bi qadri ma axraja kullu waxidin minhuma ci kemu la nga xam ne génn na ko képp kenn ci ñoom wal amalu alayhima bi qadri ma sharata jëf ba yit ci seen diggante day nekk ci kemu lañ chartoo woon min ribhi ca bénéfice ba li kulli waxidin ñeel kenn képp wala yajuuzu an yaxtilifa rasul maal du yey nag mu safaanoo capitalu alal ja wa yastawiya fi ribhi ba pare ñuy yem ca bénéfice ba mbokk kon bind bu mujj bi day wane ne ay nit mën nañoo associé bokk liggéey bokk li ñuy fayeeku di séddoo ay masoo ngeen masal yéen a bokk di liggéey di tabax ay menuisier ngeen ay baykat ngeen ngeen ànd doon mbooloo liggéey tabax waaye nag day fekk ne liggéey bi doon benn liggéey walla mu jege yoo moo xam ne lu ñu comprendre la masalan tey boo demoon lu mel ne maçonnerie am na ca kay day coffre kay day tabax kay mën na nekk di raax ak yu demee noonu ma li ñuy liggéey bokkul waaye quand même benn la li l'islam dul nangu mooy ki nekk menuisier kay moom dem nekk koo xam ne ni ab médecin la wala jaaykatu jën la nga xam ne liggéey yi bokkul ba pare nag ñu ne nañu ànd lu ñu liggéey ñu bokk déedéet loolu day indi fitna ndax ki mën naa toog ay weer bu liggéey kee moom dëkk liggéey waaye daal bu dee seen liggéey benn la wala lu jege yoo la islam dana nangu loolu ñaareel bi it mooy alal islam dana nangu nga kii indi un million kii indi un million ñu daal di bokk liggéey bénéfice ba naka lay demee. ca ku nekk la nga joxe ay masalan waa ji mën na joxe un million kii joxe cinq cent mille ñu ne lekk bénéfice bu am borom un million bi day jël ñaar borom cinq cent mille bi jël benn su dee ne ñoom ñooy cay liggéey it noo ko noonu lañ koy defee dañ naan kii day liggéey ku nekk ci yëm day liggéey huit heures de temps ñooy yem ca bénéfice ba wala boog bu dee kii day liggéey huit heures kii di liggéey quatre heures kii day am ñaar kii jël benn moo tax mu ne du daggan ci ngeen ànd yem lu ngeen cotiser yem lu ngeen liggéey subhanallah li ngeen cotiser yemul li ngeen liggéey yemul ba pare bénéfice bi day yem tant que ñu ngi ko tudde société rek bénéfice bi day topp la ku ne génn ci alal ak effort ba mu def ci liggéey bi loolu da ngay gis ni mooy lu lislaam daganal kon mbokk loolu la yàlla dogaloon ñu war koo jël tey kon na yàlla subhanahu wa taala xamal ñu suñu diine wërsëgal ñu jëfe ko tam nangul ñu ko wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain waaw benn koo xam ne li am ingénieur la ñu koy jël di ko fay par weer moom mu dem encore ci beneen société mu jël ko mu koy liggéeyloo ala kulli xaal bu dee ne moom la ñu chartoo mooy yow dama laa jël nga féetewoo ak man ñu lay fay par weer kooku du am droit di def double emploi lu dul ni dafa nekk ci société boo xam ne dañoo dëppoo ci loolu la mën na nekk parce que ki nga xam ne dafay nekk di liggéeyloo doomu aadama bi day gis service yu bari tey même boo jëloon congé duñ la permettre nga dem di liggéey ci leneen ndax yow sa xalaat fi ngay liggéey temps bi ngay noppaloo dafay jeexital ci liggéey bi kon loolu doo ko mën a boole am na nag ay sociétés yoo xam ne dañ ko d'accord lu mel ne masalan médecins yeeg professeurs yi léegi-léeg ñu permettre leen ñoom ay employés de l'État lañu waaye ñu dem di liggéey feneen waaye bu dul loolu daal amoo droit def ko lu dul da nga caa déggoo ña nga xam ne ñoo la embauché mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam ah ah tam ne tam ne.
waaw ñoo ko jël ba pare léegi ñu koy loué beneen société.
ah waaw c'est-à-dire que ne ñoom ñoo embauché waa ci léeg-léeg nag ñu jël ko di koy liggéeyloo ci feneen waaw loolu dafa fekk ne bi ngeen koy embauché da ngeen chartoo woon ci loolu mooy da ngaa chartoog ingénieur bi ci loolu yow kat dama lay jël maa lay fay waaye nag da nga may liggéeyal fii léegi nag danaa la yóbbu ngay liggéey feneen. su dee ne loolu charte boobee moom ba ngeen di def liggéey bi d'accord ngeen ci loolu loolee ay principe la yoo xam ne nii islam du bañ loolu lii l'islam dul nangu daal mooy yow nga luye ko ci ay charte ngeen liggéey nii ba pare ci biir charte yi nga wëlbati ko nag di charte ak moom di ko jox keneen loolee dañ naan déedéet waaye bu dee ne yow da ngaa d'accord ak moom ne ko ah liggéey bi de nii di demee da ngay liggéey fii temps. léeg-léeg nag danaa danaa la yóbbu nga liggéey fee temps moom ba muy signé contrat bi mu xam ne ci loolu lay nari liggéey loolu mel noonu da ngay gis ne l'islam du ko bañ wallahu subhanahu wa taala aalam naam naam waaw ala kulli xaal kon mbokk incha allah ñu doy loon loolu ñaan yàlla subhanahu wa taala man yaafiya fi dunia wal axira wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain